président Macky a un bilan positif, car les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes. À la place d'un remerciement, à la place des prières, à la place des applaudissements, il y a des personnes mal intentionnées qui échangent la vérité par le mensonge. Et nous sommes tenus de dire la vérité et d'apporter la bonne parole à la population wax dina am fomante ay catch dina am waye su deug ñu xamné deug deug na nak mo waral ñun ñu le président Macky Sall parce que c'est lui qui incarne le camp de la vérité mais ñi nga imposture catch ak sos mom la xam dañ kay bay ak le camp deug gi nga le président Macky Sall ko ko dina

Nous dit-elle le premier ministre Amadouba, dont nul ne doute de ses compétences professionnelles et autres la preuve il est l'incarnation du plan Sénégal émergent une vision éclairée de son excellence M. le président de la République Macky Sall nous xam une ne nous ñëpp xam nañ nous jaaram ñëpp xam nañ xarañteem ñëpp xam nañ ak l'engagement sans faille qu'il a toujours eu derrière son excellence monsieur le président de la République Macky Sall Fall Amadouba, Ba continuité ou plan ou Sénégal émergent Fall Amadouba, Ba natal Sénégal Fall Amadouba, Ba mooy dimbale askan bi est-ce que tey war donc nek des acteurs et complices de la situation bi nga xamante ne moom la askanu Sénégal war continuer du dundee te lépp ñu nar koo teg si ay sos ak ay wax yu fenn nous avons ne un boo nu ñuy defaree ab pont ëllëg nu ñuy taalee ab lampe ëllëg yan mécanisme nañuy tourner sur le plan des financements pour aider la population sénégalaise ñu apporter une réponse adéquate par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas la notion de l'État dañu tam di def un week-end un quartier moy samedi bu né dimanche bu ne danañu déplacer wu dugg ci koñ yi mobiliser jigéen yi fa nek ak

les fonctionnaires yi les militaires et paramilitaires ku mel noonu suñu wareef mooy dëggal cëram dëggal liggéeyam taxaw fasal ko bien vrai que les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes la ma nangul woon démb nag du tey laa koy nangu la ma mënoon démb la ko gën a garaaw donc ñi ñuy yebal un soi-disant ivrogne qui se réclame étant un conseil spécial du président de la République Nous yebal ko nous attaqué la comme nous sama cible la soxla sama nous avons dafa la kenn loyauté kenn que nous ngor parce que avons ji le président Macky Sall du ñoom parce que yamuñu ma fii fa ma jaar ba def ba yegg ku fa jaar di nga ngiroo kon yamu maag ñoom te ndróow maag ñoom te du ma ñoom man yoruma ay pot de vin di dimbale ay askan yalwaaniwu ma xaalis pour jàppale askan la ma yor dama ko liggéey

man conviction la ande ak nit ngor laay ande nit parce que président Macky Sall momako jaral au-delà de la considération politique c'est mon grand frère et je sais personnellement l'amour l'affection qu'il a toujours eu vis-à-vis de ma personne mo waral du ma ken waye kenn won mom sur le la wax té suma jakarlo won woon ñom lañ yor dañ ko ñak te xam nañ fu may waxee waaye nag koo xamul no xé def nam la dafa tax muy le président Macky Sall kon nag maa ngi koy wax ñañuy monté te bokk ci njabootam di ma xas ndax dama jege population bi di leen dimbale nañu arrêté billahi suma fippoo du baax si ñoom du baax si bennoo du baax ci régime bi loolu dama bëgg ñu mettre loolu ñu arrêté ko

ku ma jox cër ma jox la ko ba mu mat waaye ku ma fekk si yoonu xeex na nga jël say met waaye préparé wu te xam na dinaa jàkkaarloo ak yow. ndimbal na sa fekk loxol borom bu ñu soxlaa ngeen xañ ñu su ngeen soxlaa laaj ñu ñu faj seeni aajo kon nag soppi leen doxalin ngeen jàppale ki jara jàppale ngeen dimbale ku dara dimbale ngeen ànd ak ki nga xamante ne su yoree ngeen yor. man de du ma tàyyi te bés dana jot leer na suñu borom ñu bañoon danañ nangu ñu bëggul woon danañu bëgg ñu bëgg ñëw it danañu ñëw incha allah rabi lu ma wax moo waral moo waral ngir seen ndam ngir seen ndam su neexee yàlla suñu borom dinaa si participer ak cent pour cent te ngeen jàpp ne am ngeen fi un million dinaa leen ko jox si kàttan yàlla financement wu jigéen ñi la ma waxoon laay waxaat la man duma waxantu mbajuma un pesuma la sama dole bop la la sama poosu bop la te ñemé na ko bok ak askanu ties mo waral na man ne ñi nañu recruté wu ba mat cent personnes bu ñu cent personnes ñu financer len de cinq à la en 10 millions semaine prochaine nous ñëk déposé seeni récépissé bi paré. té ñu ubi banque dont le secrétaire général de mon parti ici présent le doyen Gay. moy gérer kuréelu jigen ñi Ubi leen compte volet bi semaine prochaine lañu commencer à dégager un budget de 20 millions pour déposer ko pour joko pour joko jigen ñi muy première première kuréelu daam yi nga moom la ñu taxawal ñu fas yéene leen financer semaine prochaine muy 20 millions si kattan yàlla suñu borom. naam voté wu ma fii Croix Rouge école HLM laay voté la ma leen di ñaan mooy centre bi gagné leen ko loolu daal laa leen di ñaan te xam naa ne su ngeen xaree seen tànk tubéy ngir def ko victoire dinañ ko am fii ak cent pour cent loolu mooy wax ji. takku leen ngeen taxaw li tax ma ne takku leen ngeen taxaw ñu ngi jëm si ay élection wax ji ñaaw manipulation manipulation yi dina bëri wax ju bon yi dinañu bëri mais jappale ne ben camp mo am qui incarne le changement et la continuité moy la personne du premier ministre Amadou Ba may ñaan ni ngeen mobiliser wu ni te quartier yi fu ñu dem ñu mobiliser wu tous les week-ends na ngeen taxawé nonu mobiliser wu nonu encore une fois pour Falat, suñu candidat au premier tour na ngeen président Macky Sall 2012 toll 2019 le soir du 25 février ngeen Dello boom. sa mboy mboy ga jël Amadou fal ko au premier tour mu mën a faj 2027 ñëw na mais c'est maintenant erreur yi ngeen defoon rectifier leen ko incha allah rabi ngeen dénk ma mairie Thiès si kattan yàlla seen jafe-jafe nañ ko faj.